طغى زمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون الذي قاد عباده إلى جنته فضلا وكرما بسلاسل الإيجاب أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة عبد منيب قاشع أواء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد donc junni gannaaw bu ñu sant Allah mi nga xam ne moo wax ci téere bu màgg bi ci téere bu sell bi ci téere bi nga xam ne kenn mënu koo changé téere yu baree bari changé nañ leen ba des alxuraan téere yu bëree bëri dem nañ ba comprendre ne liñ doon wax du dëgg ba mu des alxuraan téere yu bëree bari kenn gisatu leen reer nañ soo demee réew mi fekk ko fa soo demee réew mi da ko fekk ba mu des alxuraan alxuraan rek mooy téere bi nga xam ne moo dëggu moo des moo leer ah te ba bés penc kenn mënu koo changé noonu islaam yi li ñuy foor foor buñ ko songee duñ ko mën a daan te ci ay kayit rek lañ ko bind ay nit di ko jàng loolu war na laa doy nga xam ne dëgg-dëgg wax ji ki ko wax du nit wax ji ki ko man ki ko wax kooku mooy sa borom kooku mooy ki nga xam ne moo capable yàlla wax ci alquran jooju ne wa rabbuka wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru nee na man yàlla may bind lu ma neex wa rabbuka yaxluqu maa yashaa ah yàlla def leen doomu adama yàlla nee na loolu man la neex man la neex ma bind leen ngeen nekk doomu aadama mu bind leneen def ko muy leneen yàlla nee ba léegi man la neex yépp sama mbindeef la wa rabbuka yaxluqu maa yashaa ñu ne ko foofu nga mu ne déedéet gannaaw bu ma bindee ba pare mu ne wa yaxtaaru bàyyi bay sa xel booy jumu da ngay jumoo ci alquran mu ne taaru mu ne après suma ma bindee ba pare nag taaru ma tànn ma tànn lan ma tànn kii def ko mu am yàlla ne la man la neex ma tànn kii def ko mu ñàkk yàlla ne man la neex ah ma tànn kii def ko mu xam am xam-xam yàlla ne la ba léegi man la neex ma tànn kii def ko innocent xamul dara man mënta bind mënta liir soo ko bindee lettre bala mu cee xam dara def naan xoolal ma lii lan la yàlla mu ne ba léegi man la neex yaxluq man sha wa taaru ma tànn ki def ko ministre mu ne man la neex ma tànn ki def ko député mu ne man la neex ma tànn ki ko président mu ne man la neex mu ne yéen nit ñi tànnu leen man may tànn wa rabbuka yaxluq man sha wa yaxtaaru nee na nit ñëpp buñ bëggoon a tànn fekk man yàlla tànnuma kooku yàlla mu ne am naa kattan am naa doole am naa capacité yàq tànni tànnin woowu parce que préparé wu ma ko yàlla nee na lépp man maa ko préparé ci ordinateur bi lépp man maa ko signé te kenn mënta changé signature boobu wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru est-ce que nit ñi dégg nañu alquran bu baax a baax wa rabbuka yaxluqu maa yashaa wa yaxtaaru aaya la boo xam ne bu ko julli ñi déggoon dëgg dégg dégg dégg bu ñuy xëccoo dañuy ànd ak seen sako ah xëccoo boobu warta dem ba mu ji la changé la nga changé la ci jikkoy doomu aadama yóbbu la ci beneen jikko islam daf lay wax ne la nit ki pour mu nekk nit mooy mu nite nite wax lu ñaaw bokk ci nite nite violence bokk ci nite sos bokk ci nite sàcc bokk ci ah islam mu ne la fan lay xamee ne nite nit nite nga yow mooy nga amee jikkoy nit bi nga xam ne moo tax ma bind la parce que bind naa yeneen yoo xam ne bëgguma nga mel ni ñoom ndax yàlla wax na ci alquran am na ñoo xam ne ulaayika kal anaami nee na heureusement am na ñoo xam ne nit laa leen bëggoon a def waaye daal ñoom ñoo wàccee seen bopp bu mel ni ay bàyyi ma ah ulaayika kal anaami balu addal mu ne am na ñoo xam ne sax ñoo gën a suufe bàyyi ma lu tax mu ne du ci jëmm ji du ci li muy wax waaye dafa dem ba changé moom moo changé boppam ah li nga xam ne nit waru koo def mu di ko def moo tax yàlla mu ne ma classé ko feneen mais jëmm ji yëpp nag teral naa ko def ko ni may bindee doomu aadama waaye moom moo jël jikkoom def ko jikkooy bàyyi ma ah bàyyi ma moom mën naa sëy ci mbedd mi bàyyi ma mën naa def lu ko neex mën naa wax lu ko neex waaye nit nekk nit nit ku nite ki yàlla bind carrément ki yàlla wax ne wala xar karam naa bani aadama dëgg-dëgg bu xoolee boppam war naa xam ne man am na lu ma war a wax am na loo xam ne ma ko ah ba pare yàlla mu yàlla waxaat ci alquran ne maa kaana lahum xiyara ah ñoom liñ man mooy sabab rek waaye nag ñu tànnal seen bopp defal seen bopp loolu mu ne sañ-sañ boobu yeggu ci moo tax toujours yàlla di wax ci alquran ne la ni ma ko bëggee man yàlla sans yow ni ko bëggee moo tax islam di wax ne la loo bëgg-bëgg na nga ànd ak sa sago loo bëgg sa xarit mu nekk dara na nga ci ànd ak xel na nga ci ànd ak diplomatie boo xam ne soo paree doo ah parce que kii yéen yéen ñaar yéen a bokk kii yéen ñaar yéen bokku kër kii yéen ñaar yéen a bokk bokku leen xalaat waaye am na lu ngeen bokk loo xam ne moo ëpp solo lii nga xam ne xabaar mansuuran lay dem islaam ba léegi di jàngal di namu sa xel ne ñu bëree bëri danañ ñëw ci yow ne jox ma sa kàddu falma am na ñu bëri dañ ñëw ne la falma falma lan falma ma amee sa kàddu représenté la islaam ne la nag yow ki ngay fal am nga ci responsabilité da koo far rek ndax moo la neex wala da koo far rek ngir mbokk la wala da koo far rek ndax am na xaalis wala da nga koo far ndax mi ngi jëriñ islaam mu ne tànnal ki nga xam ne mi ngi jëriñ parce que yàlla mu ne manaafi'u linnaasi laa bëgg bëgguma ko jëriñut kii jëriñe kii indi lu bees kooku lañu soxla waaye mu ne su fekkee yow da gis rek ne diw moom a neex sañse moo ma neex wala nangam ak nangam yàlla ne ba léegi yow responsabilité bi matoo ah parce que yàlla nee na bi ma bindee osmaan ak suuf bëggoon naa ko dénk ñeneen ñu du doomu aadama mënuñ ko doomu aadama jël responsabilité bi ma nangul ko dénk ko ko ah, ma dénk doomu aadama responsabilité bi waaye nag maa ngi xaar li mu wax ne nañ ko ko dénk ndax man na ko doomu aadama la wax mais yow doomu aadama nga kon kenn ku nekk ci ñun war naa wax ne ah yàlla aaya bi man lay wax lan laa def ci doomu aadama yi lan laa participer ci wax lan laa participer ci jëf lan laa participer ci xam-xam ah ki may dooleel est-ce que su ma ko dooleelee ëllëg du mbugal ñu baree bëri ah responsabilité bu mag bu diis la boo xam ne yàlla dénk na la ko yow doomu aadama mu ne la loolu nag lu ci li ci ëpp solo numéro mooy nga fexe ba am jàmm. parce que soo amul jàmm mënoo def dara soo amul jàmm mënoo def dara léegi nag yow ngay gis carrément yàlla defal la bët defal la xel yàlla mu ne ku ma may xel rek desee la tuma la dara parce que ñii ma mayul xel togguma leen jëf <laughs> buñ ñëwee alaxira même buñ defee erreur majnun togguñ ko jëf majnun du julli ah du def li nga xam ne moom la kii am xel di def parce que moom togguñ ko jëf mais yàlla may la xel mooy ne togguñu la jëf dana la àtte nu mu lay attee sa làmmiñ loo ci waxoon nu mu lay attee sa tànk foo ci demoon nu mu lay attee sa signature bi fan la demoon dëgg-dëgg Sénégal yëpp ñu ngi ñaan ne ñu jàmbal ñu suñu réew ah ñu ngi seetlu ci jamono yi ay kuréel yu bari ñu ngi dajee di xeex di xuloo dëgg-dëgg wax bi rafetu ah lépp ci sénégalais yi ñu ngi déglu waaye gis na nañu discours yi baaxul. ñu ngi doon xaar discours bu gën a rafet ñu ngi doon xaar discours boo xam ne nii dëgg-dëgg dinañ xam ne ñii di wax ak ñun nii wax dëgg yàlla ay nit lañ yoo xam ne ah wax dëgg yàlla mérito nañ ñu représent suñu kàddu ah waaye discours yoo xam ne boo ko seetantalee da ngay gis ne gaaruwaale tuumaalante xuloo xeex ñun ñu ngi leen di orienté di leen oo ne leen nañ changé ah ñu ngi leen di fàttali li alquran wax ñu ngi leen di fàttali hadis wax ñu ngi leen di fàttali ne leen. ñii waxat ay nit lañ yoo xam ne ay boromi xel lañ sénégalais la bëgg naa amee seen kàddu waaye nii laa ko bëgg amee nii laa ko bëgg amee nii laa ko bëgg amee nii laa bëgg rek ci pays loolu lañ soxla waaye toog di xas sa morom di saaga sa morom loolu mënta tax nit ñi naw la islam mi ngi leen jàngal na la bul ut bu suufeel sa bopp laa tatlubu al izza lada al bila taazuzi inda al maliki laa mu ne àdduna bu mu la jaral mukk nga suufeel sa bopp bul sàkku teraanga ba suufeel sa bopp teraanga bi waxtu mu ñëwee fekk suufee nga rek mën ngaa yëkkatiku ci nit ñi waaye doo doo yëkkatiku ci kalam yàlla doo yëkkatiku ci kalam yàlla alquran di wax ak yow ne la gaa ñi li ñuy mën a def li ñuy mën a pexe pexe yépp yàlla mu ne la xoolal ci man innama amru ida arada shay an yaqul lahu kun fayakun su ma bëggee amal dara man dama naan kun rek fay kun mu daal di nekk su ma bëggee amal dara man yàlla man rek ma am sañ-sañ bëgg amal dara ne kun fay kun jaam bari bëri nag ñu ngi bëgg amal loo xam ne yàlla d'accord ci parce que islam ne na la xëccoo bi ak xeex bi lan moo ko waral mooy ñàkk a nangu ndogal yàlla soo nangoo ndogal yàlla da ut waaye da ngay ut utin ko rafet ah da ngay campagne waaye du ma gaaruwaale kenn du saaga kenn du ma yàq kenn du ma dugg ci bila ken parce que gëm naa ne li ma bëgg nii yàlla moo ma koy jox sama leader a ngi nii moom laay jàppale waaye duma ci xuloo du ci xeex du ci saagaante dem nañ sax ba ci barab yi nga xam ne yàlla màggal na leen teral na leen ñu ngi fay xeex ci ay barab yoo xam ne ay nit ñu baax ñoo fa dëkk sanc fa diine def fa lu baax gis nañ leen ñu fay xeex te Moussa bi mu ci barab bu sell bi yàlla def ne ko itlaa na aleyka innaka bil waadi al muqaddasi tuwa summi sa dàll yaa ngi ci barab yu sell yi am na barab yoo xam ne yàlla moo leen sellal ah moo tax alquran di la jàngal ne la am na barab yoo xam ne boo fa boo fa duggee wàññil sa kàddu summi sa dàll waaye yow ku la gisee nga dugg fa amoon dara looy def lu may tal sa combat ngeen di dajee di xeex di xuloo dëgg-dëgg Sénégal war naa dépassé loolu ah siyaasi yu nii politiciens yi bu ñu ko dépassé wul ñi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom dépassé ko. parce que islam ne la nit da nga ko waar ci jikkoom nit da nga ko jàngal te doo wax ak kaay xeex nga ne ko pourquoi may xeex kaay saaga nga ne ko am may saaga yàlla bindu ma pour ma xeex yàlla bindu ma pour ma saaga islam wax na ne xare jeex na keroog bi islam tasaaroo ne yonent bi sallallahu alayhi nga li ma bëggoon am na yàlla ne ko kuffu aydiyakum bàyyil xel aaya bi de kuffu aydiyakum wa aqimu salaa Ah léegi nag kufu ay jéekum wàñ wàññi fekk leen seen loxo bàyyi leen xeex bi léegi li ma bëggoon am na bàyyi leen xeex bi bàyyi leen jihaad léegi nag fexe leen ngeen appliqué kufu ah ku fu ay jéeku aqimu salaa islam nee na la banqal sa loxo yow ngay tàllal sa loxo jëmale ko fan jëmale ko ci doomu aadama di ko dóor ngay xuloo ngay xeex dëgg-dëgg yaa allahu ya rabbi ñu ngi lay wax ne la ngi nii ñu ngi ci période boo xam ne période bu métti la période tuumalante période ci wax lu la neex ku la neex def lu la neex te dara du ci fekk jàng nañ ci taarix ne nit yàlla yii nit yàlla yii bu leen rusee yàlla rus ñu buñ nag yàlla duñu rus nit yàlla yi bu leen rusee lu ñu leen di rusee mooy nu rus a def violence ci seen kanam ñu rus a wax wax ju ñaaw boo xam ne suñu bee télévision bi dañ koy dañ koy dégg erreur yi bëri na gis naa sax koo xam ne mu ngi commentaire ci défendre loo xam ne islam waxewu ko noonu doomu aadama yàlla moo ko bind ne ko doo malaaka doo jinne nit nga mënoo ñàkk def erreur mënoo ñàkk a juum moo tax zëllal li baax di minumul axdaamu fa tasmaxannam fii kaamu am na ñoo xam ne seen dëkk ta seen seen tànk tarxiis na waaye kan moo ne di audit moo leen di orienté mooy yàlla moo tax yàlla mu ne ku ma bind rek mën ngaa tarxiis te wali yàlla yi dañuy nëbbu seen bopp am na benn wali bu mag boo xam ne dafa ñaan yàlla ba yàlla may kulli jaaba lu mu wax rek yàlla nangu ba dëkk bi mu nekk ni ñi commencé di ko ragal kii daal lu mu wax rek yàlla nangu ko xam nga bu yàggee rek nit ñi ne yàlla mu ne xaaral ma génn ci dëkk bi dem ci beneen dëkk bi mu duggee ci beneen dëkk mu ne su ma yàggee fii information bi tasaaroo ñeneen niñ defoon ne ñi ne ñii danañ ko def mu dugg ci marché bi daal di sàcc bi mu sàccee ñu ne jàpp leen ko mu ngi ne sàcc la mu ne léegi nag sàcc rek lañ may jàppee léegi ma mën a wéytal moo tax doomu aadama bi lim nekk. ak li ko yàlla may du benn moo tax dañu def dañu defeen njortu liir naa ci benn téere ku ñëw ci benn saxaaba yonent yàlla moom salaay salaam ne ko diw de diw de caaxaan rek la nekkee ci dëkk bi mu ne ko astafurullah est ce que seytaane amul beneen yónnantu bu yoon yónni bu dul yow yow daal seytaane daal yow lay yónni yaay ci saare information yi daf ñoo jàngal ne même sa mbokk jullit boo ko xamalee lu ñaaw suturaal ko suturaal ko ndax seytaane ñi muy yónni bul ci bokk yow ba pare beneen xadis bi salaay si ne la man satara musliman satarahu llah ah boo suturaalee jullit yàlla suturaal la waaye xay xawyaante sutura yàqante saagaante bañante ba léegi jikko boobu nekkul jikko bi nga xam ne moo tax islaam moo tax yàlla bind ñu moo tax yàlla defal ñu teraanga moo tax yàlla wàcceel ñu xéewal yu mag yi mi ngi taw waaye àll bi taw yàlla nee na taw bi bu yéexee rek bàkkaar yee bëri tubaab yi buñ mënoon kon tàgg nañ Ousmane bu yàgg mu tàgg mënuñ ci dara gouvernement yi li ñuy rey rëy di for àll baa ngi soxla ndox mënuñ ci dara assemblée mën nañ ci dara seen seen loi yooyu mën nañ ci dara nga xam ne toujours mi ngi nit problème waaye Ousmane yàlla ji lan lañ ci man léegi pour nga jàngat yow àll baa ngi nii gàncax gi mi ngi commencé am problème te Dakar a ngi taw loo déggee ci loolu mooy ne doole dëgg dëgg dëgg kàttan dëgg dëgg yàlla moo ko moom ah moo tax olof di la wax ne la nga séntu Ousmane jarul ngay buxante ah parce que lii ñëw suba yàlla moo ko xam imaan lañ bëgg nit ñi am imaan gëm ne dogal bi ci loxo yàlla lay jógee utal yàlla nee na wa jaal naa li kulli shay'in sababan lu nekk rek da nga koy sabablu da ngay xëy dem ci marché bi pour nga am dépasse mais doo ñëw ne forcément damay am dépasse da kay xëy ne man bugg naa dugg assemblée waaye du forcément ah moo tax nit ngi dañoo war a dellu ci yàlla xam ne itte bi lum mu kawe pexe mi lu mu rëy rëy xaalis bi bari bari bëri bëri bokkiwul ak ndogal yàlla dara ah financier lu la mën a neex defal lu la mën a neex waaye yàlla bu ne nii lay tëddee nii lay tëddee ya allahu ya rabbi ñu ngi lay ñaan li nga xam ne moom la yuntu yàlla moom sallallahu alayhi wasallam ñaanoon ne suñ suñu assemblée mi ngi nii. kenn ku ne bëgg nga ñëw représenté waaye allahu ya rabbi yaa xam ki nga xam ne dëgg moo ko fa yóbbu yàlla nga ko fa dugal yaa allahu ya rabbi yaa yaa xam ki nga xam ne xereñ na mën nañoo défendre ba nga xam ne mbay mi dana baax mën nañoo défendre ba nga xam ne suñu économique dana yëkkatiku mën nañoo défendre ba nga xam ne waxtu ñu bëggee lor mu taxaw ne lii lor la yaa allahu ya rabbi ñu ne ñaan ci barke ajjuma ci barke weer yi ñu nekk di ndokkil ujjaaj yi nga xam ne dem nañ ba ñëw doon wër sa néeg bi te te sa jëmm rek tax yaa allahu yaa rabbi ci barke tawaaf yooyu ñu doon ci barke jamre yi sànni ci barke saa yi nga xam ne dox nañ ko diggante Safa ak Marwa yaa allahu yaa rabbi yàlla boo ñu gàcceel ci assemblée bi yaa allahu yaa rabbi yàlla ñu may ñoo xam ne buñ toogee dañuy nekk ixwaanan ala surrin mutaqabilin ay mbokk yoo xam ne ci kontante ak mbaax la ñuy daje yaa allahu yaa rabbi suñ kàddu benn la yàlla boo ko féewale yaa allahu ya rabbi yàlla ñu def ñu bokk ci nga xam ne dañuy wax waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu te loolu moo islam ya allahu ya rabbi ñu ngi lay ñaan ci sa kattan ci sa doole ci barke Makka ak Medina ci barke mboolem tur yi nga xam ne wàccee nga ko ñu xam ko ak ñu xamuñ ko ya allahu ya rabbi yàlla boo gàccal Sénégal ya allahu ya rabbi képp koo xam ne yaa ngi la réseau réseau boo xam ne arrangé wul réew mi arrangé wul ñu réew mi ya allahu ya rabbi yàlla nga ko coupé réseau boobu ku kii kon ya allahu ya rabbi ñu ngi lay ñaan yàlla ñu may jàmm ju xam ne jàmm la ya allahu ya rabbi képp ku ñu bëgg a dominer yàlla nga ko dominer ya allahu ya rabbi yàlla nga xool làmmiñ yi nga xam ne jàmmam ci nga dugaleen ensemble ndax ñuy wax jàmm ya allahu ya rabbi képp koo xam ne xuloo ak xeex ak contour moo la tax a jóg ya allahu ya rabbi yàlla nga ko pine ba du dugg assemblée ya allahu ya rabbi ñu ngi lay ñaan bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci barke saalihiina yi nga xam ne tëdd nañ ci réew mi te ñaan nga nangul leen ya allahu ya rabbi mbir mi ñu nekk yàlla na jeex ci jàmm yàlla nga ko jeexal ci xitaamu misk yàlla nga yàlla nga dalal xeli nit ñi yàlla nga dalal deret yi seddal ko ya allahu ya rabbi yàlla ñu jeexal lii ci jàmm comme ni nga xam ne noonu nga ko defee woon ci yu passé te man nga ko wax nañu àjjuma di nanguñu yàlla surtout fi imaam toogee woon wallahu antum mu'minu bi الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب درجة رفيعة له الفضيلة أمرنا أمرا بدأ في بنفسي وثنى بالملائكة قدسي وثلث بالمؤمنين من جني وإنسي وقال تشريفا لنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفو خيره ليس لها من دون ذلك كاشف ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بالقهر من علينا جسرا فاقسم بالقهر من علينا جسرا فاقسم بالقهر من علينا جسرا وإنا فوقهم قاهرون هو القاهر فوق عبادي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمنا في أوطاننا